mbokk yi fi ñu jëm moom mooy président Macky Sall am na ndam waaye ndam boobu da ko bokkook ay ministre ak gouvernement am pare yëngu na démb ci guddi kenn nelawul dañ naan Dakar door waaye njaga am nga pare na boot na door paa pare na door paa démb ci guddi yëngu na ministre yi député yi délégation Macky Sall toj nañ foofu mbokk yi ñu seeti li xew ca Paris ayca am nañ mbégte contentement di leen dalal fi nga xamante ne moo di Paris yaakaar naa ni war ngeen laaj lan moo fi xew ah, mati Sall mi nga xamante ne dafa demandé woon deux mille milliards faf mu am li nga xamante ne moo di sept mille milliards dégg nga maam tey fii warul yomb warul ah li nga xamante ne def li nga xamante ne moo di euh, lu lu lu sedd dégg nga maam am nañ ay délégation yu fi war a daal di dikk euh, ki nga xamante ne moo koy indi muy Marième fay Sall première dame première dame maa ngi lay dalal di la nuyu. alhamdulillah maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax kontaan rek ak mbégte. première dame bëggoon naa xam lan moo waral contentement bi ak mbégte bi ak fecc mu réew waaw ndax son excellence da doon wut deux cent mille milliards am sept cent et quelques milliards kon loolu ndam bu rëy la waaw loolu daal moo tax ñu nekk fii loolu la ñuy féete moom fête bu rëy la pour ñun vraiment. moo waral daal en délégation bi ak euh, lu rëy rëy li nga xamante ne moom nga def ci biir Paris Marème Faye Sall lan nga nar tey. tey moom li ma nar ci pare gii du yomb ndax nag liñ doon wut dañ koo am ba dépassé ko kon boog du yomb les ministres yaa ngi nii première dame yaa ngi nii député yaa ngi nii kon boog daal France la ñu nar a wàccee ba zéro du ñu may kenn dara tey. dégg nga maam France la ñu war a wàccee tey ba zéro damay daal di jàll ci ki nga xamante ne mooy war a dend ak moom muy soxna si soxna si maa ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay soxna si bopp tur bi nag. Euh, man la madame Mbengue assistante première dame. madame Mbengue tey euh, lan ngeen fi nar ba waral te jotaay bu euh, rëy bi. liñ fi nar xaaral tuuti ma woon la ko. loolu nar. yu mel noonu noonu ñu si daal di bu baax a baax jële lool madame Meng jële madame Meng Meng dégg nga Meng wàccee na fi ba zéro degré damay daal jàll ci kii soxna si nuyu naa ah, tey moom fii moom dañ koy wàccee ba mu wàcc ndax wàcc bu demee ci Macky Sall kontaan rek. waa jëlal li dégg nga maam tey fii naru yomb Sali Diop moo nekk fi nga xamante ne mooy fecc noonu dégg nga maam lay bi nan la. man maa ngi tudd madame Amadou Ba. Amadou madame Ba daal dara du seet. sax ci biir dégg maam jëlal li madame Amadou def pour man pël la mais tey mi fii wàccee ba zéro dégg maam tey fii wàcc na madame Amadou Ba moom nan la daanele soxna si maa ngi lay. lay fay. Euh, di la dalal noo tudd. man la madame Birima Mangara sama jëkkër moo yor big sa bi. wala madame. Birima Mangara. Birima Mangara loo leen tey Birima Birima Ngok Birima Mangara Birima Mangara lay doon mi ngi noonu waa koy jëlal li dégg nga maam tey ta Paris dina wàcc ba zéro degré jëlal madame Manga jëlal madame Birima cum jëlal li ëpp na ëpp na dégg nga maam Birima wàccee na fi ba zéro degré soxna si nuyu naa la di la dalal noo tudd maa ngi lay fay man la ma madame Boun Abdoulaye Dione nga ne tey boo gisee pare xam ne xol yëpp a neex parce que dañ doon demander 2 millions de milliards far ñu am 7 millions de milliards te xam nga ne loolu feet la monsieur le ministre kontaan na première dame yi kontaan nañu macha allah Macky Sall kontaan na. madame Boun Abdallah Dionne lan ngeen nar tey ci Paris xanaa yéen ñëpp ko nar na jëlal madame nga maa boo fi tojee da nga see a toj boo fi tojul da nga see a toj lii neex na lii foor na noonu dara fayu ko. soxna si. maa ngi tudd Mimi Touré. Mimi Touré kon yow la euh, Kouthia doon wax Mimi ngi ñëw. Mimi man dama laa xam. ah maa ngi ni man Mimi lan ngeen nar tey fii ci Paris. du yomb tey dañoo nar a toj Paris. waa jëlal. ko alhamdulilah tey dañoo kontaan man maa nekk présidente des femmes APR yëpp di kontaan bu baax a baax ndax 7000 milliards yombul ñu ñëw ñu accepté ko suñu président ñun ñëpp lañ ko defal kon kontaan nañ bu baax a baax. yow yaay présidente. des femmes APR yëpp. présidente des femmes APR yow lan nga nar. tey tey tey laay wàcc fii tey ba mu wàcc. madame Badiane tamit ci ñuy wàccee fii. maa la wax lii tey lay mel ni mbàcc. est-ce que mën nga ñu lii def. maa leen ko dàq sa bopp ñu xool madame Badiane wane sa bopp madame nekk sax ah waaye man nag fii laay jaaree tëj li nga xamante ne moo di émission bi